gëmloo génération seen bopp que ni nekkate nit mën naa def lu ne ci àddinaam mën naa jëriñ askanam mën naa jëriñ aw xeetam te du solu solu tubaab xam nga jàng français moom xam-xam la ñëpp a ko war a am damay wax ni moom dafa jàng li mu war a jàng ci diine ci alxuraan ci ay xasaayit xam ko ba pare jàng ñoom lañu jàng xam nga ku xool sëñ aatu ni mu jiite woon daara ji nga xam ni tubaar fa kàlla sampub mag la waaye xam-xam a ngi ci boo amul xam-xam doo mën a def yenn yi boo amul ngëm-ngëm doo mën a def yenn yi keroog ba ko baayam maam Ibrahima Diagne joxe addiya sëriñ ab laxat bisub keroog la sëñ aatu jël lu mu moomoon ngaay won leen ginnaaw dëmmal sëñ bàmba te dëppul ba na mu ko wuyjee loolu mooy conviction xanaa xamoo ni nit ku tabe du ragal te bernde xol a koy def nit ki dafa tabe dafa ragal doo ko mus a dégg nit ki dafa tabe te amul courage doo ko mën a mus a dégg nit ki dafa tabe te amul ngëm-ngëm doo ko mus a dégg te ñetti yooyu yëpp dafa daje woon ci seet sëñ aatu nit ku généreux la nit ku amul fit la nit ku am courage la nee naa la sàng am courage moo tax mu nekk ci li mu nekk ba liggéeyam mat mu wuy ji boroomam ndax li fi jaar bari na xat-xat yi bari na li leen filtre bari na ñi fàq dem bari nañu waaye mu jàpp ca la ko sëriñam ba waxoon rekk xamal ko ni wóñu dëgg lu mu sew sew du dagg jafadu ci rekk bul geesu bul yokkat te ragal maa ngi ci sa kanam maa ngi ci sa ginnaaw damay wax sax ni la sam waxoon rek wakkun amaami wakkun xalfi wakkun wasati wa fi yami li simaal yaa rajaa yëkku ni noonu la sëñ aatu nekke woon ba ni mu wujjee boromam kon sëñ aatu defe naa ni royuwaay la ay waxtaanam war nañ koo génne te tasaare ko ndax yu bëri xëy na intéressé wu leen woon loolu mooy Sénégal bala ñoo gëstu yaay kan rek nga won leen ginnaaw waaye bi nga fiy nekk déedéet sooy wax ak ñoom duñu la diglu seen voix intérieure la ñuy diglu kii bëgg nguur rekk kii bëgg a jiite rekk kii boppam rekk a ko ñor fekk loola lépp dara nekku ca li nekk mooy sëñ aatu ci boppam ci jàmbaari sëriñ bàmba yi la bokkoon sëñ aatu jaañ ci jàmbaari sëriñ bàmba yi la bokkoon ku jara roy la defe naa ni lii nag dana taxit ñu wër bëtiku war a rësësiiru war a xoolaat suñu nekkin war a xoolaat suñu ànd war a xam ni képp ku jóg ngir dooleel yoon wi waaye yoon wi ñoo la war a jàppale ndax nga dooleel ko loolu daal laa xam ni lu ama ama am am solo la sëñ Atou Diagne daal royuwaay la ci ñii fi nekk royuwaay lay doon ca ñii ëllëg waaw xam nga xam nga loolu damay dellusiwaat wax la ni sëriñ Atou fekkoon ni jëmmi boppam ji ak koom-koomu àddina rekk a ko ñor ak position bi mu amoon ci mboolem xalifa général yi nga xamante ni jànkonte naa ñoon kon sëñ aatu minti milliardaire lay doon waaye loola lépp ñuru ko li nga xamante ni nag mooy jëflante gi nga xamante ni daana ko def ak ñi nga xamante ni xalif général de Mouride bu fi mën a nekk di nga wax ak ñoom te ku ñëw ñu boole la ak sëriñ aatu loola nag damay delloo wàttu sa ca ndaala damay indiwaat Cheikh ab laxat damay wax ni seex ab Lahad moo teg programme ba pare door a dem sëñ Abdou Lahad moo créé Hizbut Tarqiyyah li ma naan moo créé waañu sëriñ baam ba bàyyi ko fi door a dem loola jëf yi jëf yi waaye yàlla la kenn mun ci dara samp mag daal Mourtala rokkas rekk Cheikh Abdou Lahad mooy ki samp waaru waañu sëriñ bàmba wi ndax kuy terle ci seexab Abdou Lahad nga koy jànge sam papa da daan wax ni seexab Abdou nee na ko Abdou ndax xam nga luy man gan mu ni ko ah Mbàkke xanaa nga xamal ñu ko mu ni ko man gan mi ngi tàmbalee cim raxasu sagan bu ñëwee nga jox ko as ndox su tuut mu raxasu loxo yoo ñuul kukk mu ni ko jàkk mu tilim rusloo nga ko toroxal nga ko te ganaleegoo ko bu daan tegal gan am raxasu paanum ndox la ñuy kooku moo jàngal murit naka la ñuy terale gan te kooku mooy ki samp is bu tarxiya kon loola aatu du ca dara aatu dañ ko doon jëfloo rek samp mag la ndax ni ko du ko waxee bërki démb keroog ba Seex Abdu Lahat woo maam Ibrahima Jaañ mi nga xam ni mooy waajuram wu góor mu ñëw mun ko sëñ aatu mii dama bëgg buy jaay ñu jaay ma buy mayee ñu may ma buy sarxe nañ ma sarax mun ko jox naa la ko àddiya bisub keroog la aatu jaañ ma euh, won ginnaaw askan wi mu bokk dëmmal sëriñ Touba ba nam ko fekkee kon samp mag la samp mag rokkos rek palaawu Seex Laat rek mooy dox xanaa am nañu royukaay am nañu plan xam li la tax a jóg te bañ a geesu di ñaanal yuusu nag yàlla woyofal yan bi ci kawam ah mbooloo de ku leen boot ni ko wolof yi waxee rek booy sàmmuk jur wenn yat ngay yor waaye doomu aadama yi boo leen jiitee ku nekk yat wa nga koy sàmme tëdd ñaay yi rek xamal leen ni man daal jaamub sëriñ Bàmba rek bu ñu teg ci seen kanam lu ngeen ma def loo ma def te it yaakaar naa lañuy ànd di ko def lépp bëgg yoonu sëñ Bàmba yu jëm ca kanam rek ndax li nga xamante ni moom la sëriñ bi gën a fonk muy xasidaam yi ah mbooloo mu ñu defarloo kër xasida de am ngaw sas mbooloo moo xamante ni gani sëriñ Bàmba yii su ñëwee yow lañ naan ganale ko ah am ngaw sas de mbooloo lañu moo xamante ni àddina wërngël këpp boo koy wër fii ba Màkka doo ko fa gis méthode d'organisation bi nga xamante ni nag sëriñ aatu Diagne teg na ko ci biir daala ji buñ ko doxalee duñu am benn problème mooy ku ñëw fekk leen ci li ñuy dox rek ku dem bàyyi leen lu ñu weesu fàtte nañ ko di dégluwaat ndigal lu ñu am jox ko sëriñ bàmba te doyloo suñu borom. lii daal mooy li nga xamante ni moom laa leen di diggal te it mooy yaakaar naa ni ci loolu dama leen caa fekkoon waaye du tee rek ñu gën a ànd ñun ñëpp takku jàppoo jàpp ci daara ji te xam ni daara ji moom du daara yuusu jóob du woon daara sëñ aatu daara sëriñ bàmba du daara yuusu jóob du woon daara yi sëñ aatu waaye daara yi sëriñ bàmba mbirum Serigne bàmba nag ku ciy def bul xool ndax Youssou Diop da ca yokk déedéet defar rek ngir yàlla defar rek ndax dangaa war a def li la war lii daal mooy li nga xamante ni ah maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk ñépp ko defee nag ñu fëgg-fëggal carnet d'adresse yi yëngalaat xool membre yi nga xamante ni dañoo mel ni musli jaxate te nekkuñu ci biir daara ji waaye ah lu daara ji yëngu ñu yëngu ca saa yu daara ji yëngoo saa yu ñu yeesoo gis ñu te bari nañu ci biir réew mi kon alhamdulilahi rabbil alamina ndax yuusu moom defe naa luñ ko cay jàngal amu ca wax dëgg yàlla jóob dafa musa a takkook sëriñ aatu ba ni aatu wuy jee di ko dénk di ko dénkaat njaboot gi ndax njaboot gi tam suñu njaboot lañu te ay tuut tànk lañu te soxla nañu ku leen jàppale te soxna nañ ku leen bàyyi bët te soxna nañ ku leen di digal ñu jub aw ci yoon wi nga xamante ni tubaar fa kàlla macha allah seen bàyyi ci la awoon sëñ aatu dafa am lu ndax di nga gis koo xamante ni baayam ab sëriñ bu mag la waaye boo demee fee fekk ko fa muy soli pantalon fekk ko fa muy def loo xam ni defuwul waaye tubaar fa kàlla allah njabootam gi ci li mu nekk rek boo leen nee jàkk rek xam ni ca la seen baay nekkoon rek la ñu ne loolu nag alhamdulilah ku leen ca gën a saxal ku leen ca gën a dëgëral ku leen gën a jàppale ku leen gën a gindi lool rek la ñuy ñaan di rajo yonent bi barke Serigne Touba di gërëm nag di sant Cheikh Mourtala di ko seen Muntaqa di ko ñaanal yàlla guddalu fanam dee du neex de waaye dégg aatu jaan gi am na sax sëñ Muntaqa Mbàkke ni mu ko taxawoo sax bi mu ko may te moo tax man la sëñ Abdou Lahad du nit ndax bañ leen di boole xamoon na ni sëñ Muntaxa mi mooy taxawu aatu kon balay sa ñoo koy ñaanal fan wu gudd liggéeyu baam bi lim ci yéen lépp yàlla na ko yeggale ci daraja yonent bi barke Sëriñ Tuuba sagu nañu lool damu nañu lool dee du neex de waaye dégg aatu jaan gi am na sag